ponk yu gën a na ci sept milliards yoo xam ne euh, régime bi fi nekkoon dafa ko dindi woon ngir euh, fexe rek ba ñu jële fi mbënd mi ci boobule euh, koppar nag lu toll ci soixante milliards ñu ngi ko jagleeloon ONAS jamono jooje nag kii di Lassana Gagny Sakho moom moo jiite woon boobule bu liggéeykaay mu nekkoon ànd ak Macky Sall tey jii mu ànd ak Ousmane Sonko boobule coow nag ñu daal di koy jukki daan ci ànd ak yéen ci bi la jotaay xibaar. ci jamono jooju li nga xam ne moom mooy nawet daal dinay tàmbali ak jafe-jafe yi nga xam ne moom lay àndal lu ci mel ni mbënd mi fii ci ndakaaru banlieue naka noonu ci région yi fu ci mel ni Tamba itam euh, Touba ngeen baal ma mu nekk ay gox yoo xam ne ndox mi euh, daanaka bëri na fa ba tàmbali nag jur njaaxare ci askan euh, wa fay yeewoo wàllu yoon itam ah, daañu ko waxtaanee nees mën a def ba yoon gën a mën a tëddee ah, njaxanaay eh, kii di maître Henri Valentin Gomis di ab avocat moom nag daf ci dal di addu fësal nag lu toll ci juróom-ñeent ci ay ay digle yoo xam ne nee na buñ ci sukkandiku mënees nañu ah, jagalaat li nga xam ne moom mooy sunu justice su réew mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës yaatal gi léegi léegi lay doon. jaajëfal leen bu baax a baax ci tellu bi ànd bekk 7TV gaaw gi weesu ilimaan jorin bu Sénégal Ousmane Sonko ma ngi woon ci diwaanu Ndar Géej ñeel ba bëccëg ñu jagleeloon wàllum jotaal gi prox ndoolu wàlle ki kaddu jëmale kappar gu ñu luubal tollu ci juróom benn fukki milliards loolee nag waroon a dem ci yéen ci ay bànqaas yoo xam ne jàppale ne day soxal fukki gox ci réew mi jamono ju ñuy euh, jukki yooyu les euh, koppar kii di Lansana Gagny Sakho moom moo jiite woon euh, ONAS tey jii nag mu jóge ca régime Macky Sall daal di fekki Ousmane Sonko ngi daal di ànd ak moom ci régime bi ñu ne ñu teewlu Pa Bandagay ci fàttali gëm ñu defal. au lancement du projet des dix villes dans la ville de Saint-Louis. fukki dëkk ci Sénégal. war faa def 60 milliards ñu def fa assainissement te Pikine bokkoon ci. Pikine qui connaît de ko problèmes d'assainissement. programme d'assainissement de 10 villes bi ñu war a amal ci Dakar. ci atum 2017 office national de projet ngir dakkal mbënd mi nga xam ni sonal na askanu Sénégal ca noonu lañ taxawalee lu ñu duppee programme d'assainissement de 10 villes ca fukki gox yooyee Ndakaaru bokk na ca Saint-Louis Pikine Louga Rufisque Tivaouane Matam. Kaolack Tambacounda ak Touba. plan boobee ka ko amal di directeur général bu ONAS ba woon Lassana Gagny Sakho ñu koy gis ci image yi ñu jëlee ca Saint-Louis. Pikine va être touché Guenta va être touché Ndiolofène va être touché Quartier Nord va être touché je pense une avancée significative qui correspond à la vision de son excellence le président Macky wante at ginnaaw loolu jafe-jafe bi di wëy mbënn mi di gën a takkarnaase ci gox yi nga xam ni war nañ fa amal programme bu ni mel. ci atum 2024 premier ministre Ousmane Sonko di fësal ak jëm ci benn ci gox yooyu te du benn bu mooy Saint-Louis. il fallait ñu def fii benn station d'épuration lan moo tax ba tey station boobu tabaxuñ ko te nee ñu xaalis bi seey na dem yoonam nañ ñu wax 60 milliards yooyu fan la ko gars yi dugal. loolee tax ñuy samp laaj naan ndax ki fi nekk jamono ji président bu conseil d'administration bu sa géré na bu baax programme boobee ndax dafa laale ci mbirum détournement bi premier ministre di lamlaame jamono ji ngir am liñ ci leer ñu jël ndogal woo ko moom nday mbili mi allo oui. allo oui bonsoir. Euh, monsieur Lansana Gagne Sakho. oui. Pape Banda Gaye la 7TV. oui ça va. oui ça ça va merci. super. wante mu lànk ni tontu ci suñuy laaj. je ne hein. je ne souhaite pas en parler. ba noppi daal di coupé. lii ndax day firndeel ni moo def liñ koy jiiñ lu ci mën di doon lancé na gàññi saxoo ñu tabb ko bu yàggul dara PCA bu agence de promotion des investissements war naa indi ay tontu ci anam bi nga xam ni noonu la gérer programme d'assainissement des dix villes noonee nga xam ni la ko premier ministre Ousmane ko daal di laajee foofee ca Saint-Louis Balla yi dañuy des ak euh, Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne mu leen dénkoon wàllum ONAS ci nguur ak euh, Macky Sall moom mee nag euh, aéroport yu bari dañ ko daal di fësal turam te leen ci ay mbir yoo xam ne daanaka doon na wàllum ñeel wàllum liggéeyam waaye nag jàpp leen ne moom mee dañ ko tabb mu nekk PCA bu APIX.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 am na ñu njort nag ne na mu leen a sonalee woon ni gi daaw du ko euh, defee ni ki ren ba tax na nag dañoo fas yéene ànd ak euh, commune ba daal leen a gunge euh, ci wàllu liggéey bi ñu ànd ci Matar Ba yi Grand Yoff bokk na ci ci Dakar yi yi nga xam ne ñoom ñooy jànkonteel ba ndëm bi saa su nawet ñëwee ak mi tamit askan bi ñu ngi waajal situation boobu nga xam ne yàgg nañ ko dund. depuis 1966. man laa laa dugg Grand Yoff depuis ñu fi dëkk bi léegi fii muy fi ngeen di gis nii kii bi nii dafa dafa yàgg inondé depuis temps depuis boobu ba léegi day inondé. chaque année day am ñun dañuy fagaru rek di bàyyi lépp suñu loxo borom sans dépense si nawet bi nu muy ñëwee des fois mu métti des fois mu tane comme daaw tane woon na. bu fekkee ne sax amul benn dégât boo xam ne def na ko taw yu njëkk yi nga xam ne wàcc na ci kaw capital bi indi na tiitaange ci biir askan wi. li ñu jot a gis bu taw bi gënee taw moom dina métti trop si ñun waaw parce que amoon nañ yaakaar nag. mooy ba berte bi pareeg yooyu noonu ñu ngi doon am yaakaar ne après nawet bi fi lay jaaree Grand Yoff ñu gis inondation bu xel yi commencé waat na tey quoi commencé waat nañ tiit parce que inon inondé na fees na ba fees dell ba canal bi fees fii yëpp fees romb sama buntu place. wante nag ñoom ñu ngi dundee yaakaar ne ren dina wuteeg at yi passé ndax jéego yi nga xam ne mairie ba nga koy def. dañ doon toog ay jamono bu tawee waa waa boor boole sax dañ doon génne dem leen fa dem di dëkk ci école yi fu mu toll nii ñun waa Grand ñoo war a toog jàppale maire bi naka la ñuy jàppale maire bi bu ku nekk sa gox boo ko boo si góorgóorloo dina baax. ndaw yi itam ci seen wàll ñu ngi booloo ngir dugal seen loxo ci liggéey bi nga xam ne municipalité bi sumb na ko. saa ñu ñun mi ñun booy ndaw yi ñooy génn fii sax saa su taay ñooy génn defar fi ñu defar fii nettoyé fii ba mu baax wóor na yàlla defar lépp. ñu doonoo sonn si Grand Yoff wóor na yàlla mi Grand dëkk la de barki yàlla war ñu saboté Grand Yoff quoi nañ jàppale ñu defar lii yëpp. taw yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci week bi indi na ay inondation ci yenn gox yi nekk ci réew mi bu ci mel ni Kaolack ak Touba ndakaar nag ci wàllam muccagum na ci yooyu la inondation ci diwaanu Géejawaay Matar Bari foofee itam jot nañu dund lenn ci mbënn mi ba tax nag xàll yu bari dafa xaajaloo lu ko waral di ndoxum taw mi na mu fa daal di ba tax sax nag ñu bari ci askan wi génn daal di koy ŋàññi. ñoom nag la ñuy sàkk mooy nguuru Sénégal dal di euh, gën a ñoŋal jumtukaay yi ngir fexe rek ba fànq bépp jafe-jafe ñeel wàll mi te wàllu mbënd mi te mu mën leen jural loraange dañuy dem ca banlieue bi fekk fa suñu ndaw di Bakary Cissé. soo xoolee problème curage bi doon nañ ko wax bien avant. temps yi waxoon nañu dañ def benn benn dañ woo ñi nga xamante ñoo autorités yi pour ñu jàppale ñu def curage bi avant nawet bi di ñëw tey li ñu doon te lii yaakaar naa premier taw rek la premier pluie la mais ci Camp Tour kon xam yaakaar naa kenn mun fay jaar ndax gis nga oto actuellement ñëpp dañoo boycotté nag muñ fay jaar mais lii nañu waaw au niveau de Guédiawaye surtout wax na Nimzat point bi nga xamante ne actuellement actuellement mooy point Sëñ Assane bi amaana beneen point boo xamante ne moo nekk ci jumaa ji a beneen point boo xamante ne moo nekk fi ñuy wax yëngu leen eh, ñu ko wax en face jàkk bu jaw beneen mi ngi nekk en face mairie bi quatre points yi daal nekk na point yoo xamante ne vraiment bëgg nañu ONAS ñëw taxaw jàppale ñu quoi vraiment ci diwaanu Touba itam ñoom ñee taw yu sóobu ci ñaari fan yu weesu gaaw jàpp jibeer tax na itam ba yenn ci ay koñ ndox ma bari fàttali leen nag mën mi leen di indilee loraange saa bu nawet ñëwee. bokk na ci yooyu li koñ di Kër Ñaa foofe sax daanaka lañu def li di bassin ba askan wa yeewoo ca pegg wa nelootuñu bay yandoo dañuy fekki suñu ndaw Abdoulaye fay ci ay leeral. gox yu bari ci Sénégal jot nañu daal di amal seen taw bu njëkk ci njeexitalu ay bés gi ñu génn bi wane ndoorteelu nawet bi fii ci biir réew mi Touba nag desul benn yoon ginnaaw gannaaw ay waxtu yoo xam ne jot na ko daal di jot ci ndox yoon yu bari ak itam ay kër dañu daal di sóobu ci biir ndox mi kër ñang boo fa demee foofee nag ab njàqare la daal di jur ca ña fa yeewoo. wax dëgg yàlla ndox mi moom sonal nañu lool. bassin bañ ko fi defee ba léegi. danoo loru ndox mi saa bu tawee kër yëpp ay fees ak ndox regard bu ñu demee ci dëkk bi rek ci bassin bi la jëm te bassin bi daa tuuti wax dëgg yàlla war na noo dimbali ci lii ndoxam dëkk bi nag wax dëgg yàlla xajut fii yéeme na lool ndax fi mu ne daal ñoom sonn nañ képp koo xam ne yaa ngi branche lam ndox mu ñëw fii ci këri jàmbur lay jëm loolu moom ñëpp war nañ ko xam ñoon li ñuy daj mënuñ ko wax li tane moom mooy ñu séddoo ndox mi benn yoon nam bu jëkk sax ñu bàyyi a na ay bakkan yu fi rot li fi xew ci bi ñëpp xam nañ ko kon ñoo ngi sàkku ndimbal mu daloo bassin bu njëkk bu ñuy du yóbbu ndoxu Tuuba gi kër ñang mënuñ wax ne dañ ko daal di fàtte ndax amul benn yoon regard boo xam ne jóge na ci biir kër ñang ngir mën a évacuer ndoxu taw booy taa ci biir gox ba. ñun kër ñang moom amuñu benn regard benn. dëgg yàlla nan nu dimbali wax dëgg yàlla comme ndox mi kay ñun lañ koy dénk nan ñu defal ay regard ñun tamit comme ni ko ñëpp amee. ci jamono ji nag nga xam ne la june sëriñ Jaxare gu gën a moom mooy grand magal de Touba bi nga xam ne mu ngi jege si dañ koy war a amal ci biir nawet bi ah, te lii bi danga xam nga ne lii ñu du bu doon fu ñu dëkkuwaay rek wala nangam mën na di ko ŋàcc muy dem ay ah, màggal Touba gi si te gan ñi nga xam ne kenn ku ne da war a dem ndox mi bari ñu ne loolu rek moo ñu si gën a li gën a gën a jaaxal yooyu la inondation nag nga xam ni Kër Niang mu ngi koy jànkuwanteel depuis ba ñu taxawalee bassin de rétention bi boobaag léegi def na lu ëpp fukki at ak juróom daal di nay def nag akub gént ci ñi fa yeewoo ba tax na nag ci xayma toll ci téeméer ci ay kër ñu daal leen di abandonné. lu mooy loolu dañuy wax ci baccalauréatum 2024 régulier àjjuma nag la lépp yemb jàppale ne ni kiy démb résultat yi itam ba tey tàmbali na wàcc ci diwaanu Sacré Cœur ci lycée wa foofee nag ñi candidat yi nga xam ne jot nañu am d'office daan nañuy wax mbégte gi ñu àndal. bokk na ci ju jury yi nekk ci boobule centre muy jury 1380 ki ko jiite nag la mu xamle mooy téeméer boo jël ci candidat yi daanaka lu toll ci ñeent fukk ak juróom am nañu seen baccalauréat yaa ñu andi ceeg jëna ba mu wax sow si bile centre teg kaaral lañ fi nemmeeku stress bi di fës si seeni kanam yi ñu bëri si ñoom daal di ci si seeni téléphone yi les candidats baccalauréat nag di xaar traditionnel délibération bi waaye nag ab surprise lañ daal di am ndax résultat yi SMS lañ ko jotee ginnaaw loole nag ambiance bi daal di tàmbali. candidat yu jàll ci premier tour bi nag daal di rek fësal seen dama kontaan en même temps dama xaw a choqué parce que en fait bi ñu ma yónnee message bi. je me suis dit non quand j'ai vu que genre j'étais admise et tout non franchement. ah sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin laa ñu ko wax rek sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah rabbil alamin Euh, fii na nga xam ne euh, via message via texto yi ni ko yónnee ki ma ko yónnee waa office du bac nañu yónnee message waaw laa yaakaaroon damaa yaakaaroon que ni que dañuy euh, proclamer mais finalement xam naa à l' instant bi ñu paree waa office message si bile jury 1380 dañ fi fekk du jury bi daal di def point bi première série bi mooy série S2 donc 194 candidats la 73 non d'office et si ñooñu am na ku am mention très bien et donc 54 aussi yóbbu na leen deuxième tour. série S2A ñoom it 55 candidats la woon globalement. et 33 la ñu admis ñoom ñoom admis d'office et donc 15 yi deuxième tour la leen yóbbu. Euh, série LA bi tamit euh, globalement 29 candidats la ñu woon 8 la ñu non admis d'office ñu si def admissible ensuite euh, série L arabe 124 candidats la woon. et si 124 candidats yi 32 ñoom ñoo admis d'office 30 yóbbu na leen deuxième tour. moom président bi nag daal xam ne ni que résultat yi tane na. Euh, mën na xaw na tane parce que dina nekk autour de 45 pour cent su ma juuma. ginnaaw loolee nag candidats yi nga xamante ne dañoo jàll ci deuxième tour yi. ci àllarba gi la tàmbalee. te ñoom nag ñu am seconde chance rekk ngir mën a mottali poñ yu des. ci diwaanu Kolda itam danañuy fësal seeni résultat yu bakk wile mu mel ni daal yi fi demeewul noonu ci pàcc bu njëkk bi. moo xam nag candidat yi nekk série S wala série L bëri na ci ñoom ñoo xam ne seen matières yi ëpp doole dañ cee daldi di nërmeelu ca Kolda lañ jëm fekki fa suñu ndaw di Bécaye Cissé. ñii di jooy ñii nekk ci mbégte loolu ginnaaw bu ñu jotee ay message yu jóge ci office du bac ñenn ñi daldi di admis ñeneen ñi ñu daal di leen ajourné. fii nag ñoo ngi centre d'examen bu lycée Alpha Molo Baldé bu Kolda résultat yi ñu daal di leen joxe nuñ ko tàmm di defee. par ordre de mérite le numéro 88 51 Fatoumata Binta Souare mention assez bien lycée Alpha Molo Youssouf Seydi mention assez bien lycée Alpha Molo Baldé. ca jury 10 38 prime si 211 yi ñu amoon 20 ñoo daal di jàll premier tour 60 yi ñoom la ñu déclaré admissible ca série S2 21 admis d'office la ñu am ci 93 candidats 33 yi ñoom foog ñu matali ay poñ ci second tour bi ñu nar a amal ca jury 10 37 ak 10 39 constat bi benn la résultat premier yi taxu ko baaxee noonu. boo jëlee S bi par exemple ñoom mathématique SVT ak PC mooy ñoo xam ne seen discipline de base mais dafa am ñu bëri ñoo xam ne mënuñu am lu ëpp 5 sur 20 loolu mën na justifier un la nature catastrophique un peu de résultat boo jëlee yeneen séries tamit les séries littéraires la demee. ba léegi mën nañoo dundee yaakaar. ndax koldaa moom day faral di am ay résultats yu baax ca public bi waaye mu mel ni candidat libre yi ak ñu jóge ci privé yi ñooy tax résultats yi gën a wàcc. avocat yi di euh, Henri Valentin Gomis moomee nag daan nay wax yenn ci ay ponk yoo xam ne nañ daal bu ñu ca sukkandikoo yor mën na dem ba boppam. bokk na nag ci euh, euh, ponk yooyu nga xam ne mu ngi toll ci juróom-ñeent ci ay euh, digle muy fexe rek ba daal di yokk doole kuréel gi dajale àttekat yi waaye itam li nga xam ne moom mooy anam yu ñuy euh, euh, daanaka affecté ñi di euh, magistrat yi ñu daal di koy soppi waaye itam dakkal daanaka parquet bi nga xam ne dafay féete kaw ñoom attekat yi ci yenn ci ay dogal yu ñu jël ba noppi nag lépp loo xam ne code la ñu daal di koy càmbaraat seq na waxtaan ak Mamadou Kanté ñu teewlu. gannaaw lël bu ñu amal jam ñaajo ngir waxtaane nu yoon di doxee ci biir réew mi avocat à cour bi di Henri Valentin Gomis becc ceeb xalaatam moom mi nga xam ne ni premier secrétaire de conférence la jàpp ni bu ñu bëggee jubaale yoon ak askan wi faaw ñu amal ay coppite te mu jàpp ni sax coppite yooyu moom mooy tax ba yoon tëddee njaaxaanaay ba kenn du ko mën a wax lu mu war a def ak lu mu warut a def lu ko mooy rek nu yoon di doxee day am ay gàllankoor yu bare ngir mooy ton gàllankoor yooyu moom moo tax it ba maître Gomis moom di sàkku ngir ñu amal coppite yu ci mel nii yokk dayoo bu conseil supérieur de la magistrature te taxawal ab kuréel bi nga xam ne ni moom mooy saytu nu conseil bi di doxee te mu duppee ko au conseil de la magistrature loolee de ajo it ngir ñu amal ay coppite ci anam yi nga xam ne ni moom la ñuy fale magistrat yi ak seen i affectation bu ñu sukkandikoo ci xalaat bi nga xam ne ni fësal na ko balaa ñoo tàbb ab magistrat faaw ñu jaar ci appel à candidature wala postulation ba noppi mag ñu nekk ci conseil supérieur de la magistrature daal di tànn ñett candidat bi nga xam ne ni dañ leen di jaarale ak ci enquête de moralité lu ñeel nag ci wàllum texte de loi yi mu jàpp ni dañoo war a amal ay coppite ci code yi nga xam ne ni moom la Sénégal am lu ci mel ni code pénal code de procédure pénale ak yeneen muy sàkku it ngir ñu amal ay coppite ba parke bi du am doole gu rëy ci kanamu juge d'instruction ci tënk juróom-ñeent coppite moom la sàkku ngir ñu amal ko te bëgg ñu yaatal waxtaan gi ba yeneen ni boroom xam-xam mën cee becc ñoom it seeni xalaat. fii ak bés téeméeri fan njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye dina ko def ci bopp réew mi bu ñu sukkandikoo nag ci rek député bu taxawu Sénégal mbir mi nag mën nañ caa bañ a yàkkamti. la tax nag ñu bañ cee yàkkamti nee na moom Aba Mbaye euh, kii nga xam ne moom mooy njiitu juróomi at lañ ko fal waaye du euh, pour euh, téeméeri fan. téeméeri bés yi njëkk ci nguuru nguuru président Diomaye gisuma ci lu ma lu ma lu ma jaaxal ba jaaxal ma gisuma aussi lu ma lu ma bégloo ba mu ëpp ndax dama dañu xam ci li ñu nekk dañu xam ci li ñu nekk lu metti la parce que ñoom dañuy ñëw di découvrir nguur di di gis état di ko jàng. war a def ay changement yu bëri ci nit ñi ci direction yi war a def ay changement yu bëri ci doxalin bi fekk am lu ñu fi fekk lomte ne war nañ ko càmbar ba pare doo doxal seen liggéey dafa laaj temps bu bëri dafa laaj temps bu bëri et je pense que ku jaar état xam état nekkoon ci administration xam circuit administration xam nga dañu soxla temps bu bëri moo tax dañ war a accompagner wàññi les conflits wàññi la politique pour leur permettre de s'installer et bu ñu taxawee xëy na fleg at laa boobu baa daañu mën a daañu mën a avancer jaare fi teewlu ëtt yéen kay dal leen jàmm téeméeri fan yi nga xamante ne euh, président Bassirou Diomaye Faye def na ko ci bopp nguur gi moo gën a fës yéenekaay yi yéenekaay yu bëri nag daal di jottali jàngat yi nga xamante ne ñenn ñi def nañ ko jëmale ko si téeméeri fan yu njëkk yi mu fi def yéenekaay bi di critique jottali nag jàngatu kii di président mouvement gëm sa bopp di bëggaan Gueye dani moom mi jàpp ne bilan bu sombre maanaam bu lëndëm la ñu mën a xayma taxawaayu nguur gu bees gi mu mel na nag ku leen defal procès yéenekaay bi di l'info sax di wax ne Bougane Gueye Dany li mu seetlu moo di ne projet bii nga xamante ne moom la ñuy wax ñoom waa nguur gu bees gi projet naxee mbaay la bu kenn mënul teg loxo ci jamono ji nga xamante ne askan bi ñoo ngi gën di sonn wal fu Walf Quotidien Walf Quotidien itam jottali ay kàddu Bougane Gueye Dany mi nga xamante ne dafa mel ne ku leen bindal ab taalif ni mu jàngatee nag téeméeri fan yi nga xamante ne moom la fi jomaay def mën nañ ko méngale téeméeri fanu naxee mbaay wala gént daanaka tribune sax gën na kayaatal yaatal daal di dellu siwaat ci buggaan ni mu ko bindee mu wax ne téeméeru fanu gént la ak naxe téeméeri ndaw yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci téeméeri jéego yoo xamante ne soriwul ak ndar lépp nag mu teg ko ci ndodd Sonko yéenekaay bi di Les ko sax daal di si yokk kàddu yi nga xamante ne moom la Bougane Gueye Dany daal di yëkkati ngir xayma téeméeri fan yi nga xam ne jomaay def na ko ci bopp nguur gi moom Bougane Gueye Dany jàpp na ne joma ak nguuram ñoom daal ay impôt dong moo leen soxal di rakete ñi nga xam ne ñoo di secteur privé bi waaye jafe-jafe askan bi soxalu leen yéenekaay bi de Le Quotidien di wax ne Jomaay li muy ñaan Sonko moo di ne mu dakkal lii di mbëkk mi nga xamante ne ndaw yi ay téeméeri ndaw ñu ngi si ñàkk seen bakkan jamono jile source a moom tamit daal di jottali ay kàddu Babacar Diop moom meeru Thiès bi jàpp ne naam nag jafe na ñu def ab bilan jëmale ko ci liggéeyu nguur gi téeméeri fan yu njëkk ginnaaw bi ñu fi taxawee waaye muy ñaan joorin mu njëkk bi mu daal di wàññi wax ji gën a concentré wu ci li ëpp solo yéenekaay bi di Vox Populi moom daal di jottali moom tam kàddu ki di Abdou Latif Coulibaly moom muy méngali téeméeri fan yu njëkk yi si président Bassirou Diomaye Faye def ci bopp nguur gi muy téeméeri fan yu ñu mën a méngaleeg ñaar téeméeri jëf yoo xam ne bokkul ak li ñu digle yéenekaay bi di Le Quotidien moom tamit jox kàddu kii di doyen moo di ñaa mi nga xam ne li muy ñaawlu moo di ne nguur gi dafa yéex a topp ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon caxat-caxatee alalu nguur gi muy ñaawlu kon ñàkk daan bi am ci ñi mu jàppee ay délinquant maanaam ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te teg loxo ci alalu askan bi mbokk yi foofu lañu daal daan dar keppee kaay yi génn tey ñeen ñaanal ngeen jàngat ko ci jàmm wadd mbokki jaare fi buur jotaayu xibaar bi ànd beeg 7TV amoon mbégte janoo ci Kajoor Cissé cant ak ngërëm ñeel na la Suzanne ñu ngi jaajëfal bu baax baax mbokk yi ñu doon teewlu xibaar ci tënk juróomi waxtu la doon ci kàllaama nasaraan ak wolof ngeen di ci feggoog Germaine Diouf jaa ngeen jëf.